بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول وأنك محمد بن عبد الله واشهد انك قد بلغت رسالات ربك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي سران كدي جروب مال خيار كومينيكاسيون مو أمبكت لول أكونتان تنجير فسين أندجين غير ديتل لين لب لطوكي تي غودي غام غيان خمني نينكولون أمال في في جنة الفير داوسي كرمي فال تندي تلو شيخ أحمد مباكي ما أول حيات mu nekk nag guddi goo xam ni ci la gën gi mbindeef sayduna muhammad salallahu taala alayhi wa sallam gane jamono ñu koy màggal at mu jot nag fii fi janatul firdawsi Kër Mbay Fall te liggéey boobee yépp nag sëriñ bi teg ko ci loxol diwaanu xiyaaral muridin fii xidmatil xayril alamin bu Kër Mbay Fall di njiitalu Cheikh Yaxya Si mi nga xam ne moom mooy seen jëwriñ waaye di jëwriñu mbokk taalibe yépp fépp fu ñu mën a nekk ci kaw suuf من كان في خطر أو كان في سفر على أن لله مولم في سوى سفر من كان في خدر أو كان في سفر ثم صلاة بتسليم محمد dañuy rek góor ak jigéen mag ak ndaw takk laxasaayu kat ngir waajal ay xéwal yoo xam ni kat gan yi fépp ñu mën a jógee kat bu ñëwee dinañ mën a xéwlu ci gën ngaa selli anam mu nekk liggéey boo xam ni kat Cheikh Ahmadou Mbacké Manou Hayaat mu ngi ko teg ci loxol diwaani xiyaarul muridina fi xidmatil xayril alamin bu Kër Mbay Fall ci njiitalu jëwriñ Cheikh Yaxya Si ak mbooleem waa dëkk bi ak mbooleem mbokki taalibe yépp nga xam ne ñoo aju ci maanaam Cheikh Ahmadou Mbacké Manou Hayaat loole moo waral kat bi ñu xëy rek mbokk taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw kat ngir fàggu ay xéewal yu mucc ayib kem li nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul noonu la ko daan defee fa njaareem ndax eh, nettali nañu ni kat ah bis bi kat saa bu yegg si waan moom moo daan fàggul boppam xéewal yi daan ko séddale ci loxoom bu tedd ba loolee nag la Cheikh Ahmadou Mbacké maam xeex tàggataat ci ndaw ñi tàggataat ci mboolem diwaanu Kër Mbaye Fall ba tax na kat bi ñu xëyee rek ñoom ñëpp ñu laxasaayu góor ak jigéen mag ak ndaw ngir kat xéewali nu mu gën a muccee eh, nu mu taw a tawféexee kat ba mbokk jullit yi nga xam ne dinañ joxe dinañ jóge ci gox yi fasantikoo ci réew mi ba ci ñi nga xam ni sax dañoo jéegoon bitim réew ngir màggal si woon ci màggal Touba gi nga xam ne moom la ñu weesu kat ñoom ñëpp kenn bëggu cee delluwaat kat bis bi weesuwul loole moo waral mbokk taalibe yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw góorgóorlu ngir kat lépp loo xam ni maanaam aajowoon na bis bi aajowoon na ko ci ay xeeti berde ak xeeti xéewal rek ñu faagu ko ngir bendale ko rek mbool ko jullit nga xam ni am nañ ngeen egsi ci bis bi tam na بنذر النجر كنانة الأخ الفجر وذاك النجل هزيمة بن مدركة خليل إلياس من جمع إلى مداري وذاك النجل لدار لمادي خليل أدنان وهو الحبيب الذي من أجله خلقت خلائق الله كالأملاك bi ñu demee nag ba julli timis ba noppi sous préfet bu jàmmagën si Kab Mbaaw ñëw na fii fi janatul firdaw si Kër Mbay Falkat ngir ndokkeel sëriñ bi ngir ziaranteeg sëriñ bi ci bis bu mag bi ci bis bu tedd bi di bis bi nga xam ni kat ci la gën gi bindeef yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam gane jamono mu am jotaay bu am solo boo xam ni sous préfet bi amal na ko ak Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat ñu ànd ko teewlu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit di mbokki taalibe yi mbokki seetaankat yi ñu ngi leen di nuyoo fii ci euh, jannatul firdaws ci kër Mbay Fall. ci daara ji nga xam ne Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Hayaat sanc na ko ci atum 1995 jàpp 1996 ginnaaw bi nga xam ne bàyyeekoo na ci liggéey bu tedd bu mu doon liggéeyal Serigne Touba te jaarale ko tamit ci Serigne Touba di Serigne Saliou Mbacke diiru fukki at ak ñett mu matal liggéey bi sëkk Serigne Saliou yeewi ko bind ab leetar boole koog Serigne Baye Jaxate ca njaareem xamal woy juróom wu tedd bi di am di Moustapha Al Karim lepp lu mu bëggoon ci sëriñ bi suñ borom defal nako ci fi nak mu fi di liggéey tàmbalee liggéeyam ci bërëb bu doy waar ci bërëb bo xam ne lañuy la borom xel yi ñi nga xam lepp lo leen wax ñu sanni ko ci seen biir xel xalaat ci bu baaxa baax bala ñu ko gëm muy bo kenn sentu fo won ay jëm di fa di dëgmal seen borom di am yéene ak yitte ngir làq ngërëmam muy université Cheikh Anta Diop taalibe yi ko njëkk a topp ñu ci bari di bàyyi ko foofu ci daar ju mag ji di ko fekk si fii ci kër Mbay Fall muy def ci ñoom leeru suñu borom subhaanahu wa taala di def ci ñoom ak njub di def ci ñoom ak dëgg di leen teg ci siraatul mustaqim loolee ba fii ñu toog di wax ak yéen dakkul mukk ndax saa su ne waxtu wu ne jaam ñi di wër ku leen jubal di wër ku leen teg ci ci dëgg di wër ku leen teg ci siraatal mustaqim ba tax na diggante bi yeneen i daara feeñ na yeneen i liggéey itam tàmbali na ndax la mu waxoon ca njëlbeen ga loole ci la nekk fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci tollu lislaam bi di yaatal islaam di yaatal njàngaleem Serigne Touba ba fépp foo xam ne islaam àgg fa woon mu fexe ba mu àgg fa waaye fépp foo xam ne islaam àggoon na fa te sellul mu fexe ba jaam ñi di ko sellal ci gën ngaa rafetee ne anam. ba tax na mbokk julli di mbokki talibé yi mbokki kat yi bu ñu ñëwaaté fi nga xamné sëriñ bi fi la tambalé di gamu, ci li ñu xam ci li mu ak ci li mu di ko ak wa dëkk bi yépp ñëpp ma ko nekk benn top ci ginaawum muy liggéey liggéey bu am solo di ko defee sëriñ Touba jàngalé ci ñangum alquran ci ñangum xasida ci def ay waye waaye wat bu baax wat bu baax ak mbokk julli di ak mbokk taalibe yi wat bu baax baax pass ba képp koo xam ne teew nga fii ci kër Mbay Fall jannatul firdaws nga delluwaat ci sa borom bu baax gën a woyofalaat àdduna bu baax a baax ci sa xol waaye gën a yittewoo ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala gën a yittewoo lëggeel sëriñ Touba te lépp dëppoo ak ni ko sëriñ bi jàngale tey nag ñu am fi gan gu màgg di gan goo xam ne xëy na mi ngi njëkk a sol dàllam di ñëw ci barab bi ginnaaw bi suñu borom dogalee mu wuutu ñu ko fi jiitu woon ci liggéey bi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy liggéeyal Sénégal di leggel ki nga xamantene mom mo jité jiite réew mi di président de la république monsieur Macky Sall ki tok fi moy sous préfet arrondissement yi di monsieur Souleyman Li. monsieur Souleyman Li, ñëwoon ci turu gouverneur région ñëw ci turu ministre de l'intérieur waye ñëw ci turu premier ministre ñëw ci turu président de la république monsieur Macky Sall ñëw na foo xam fu mu wara a ñëw la ñëw na itam fo xam ne ay jëmm yuy tegginu yoo xam ne seen tànk ñoo ngi ko teg ci njàngaleem sëriñ bi di jaamu yàlla boole ko ak liggéey ñëw na itam ci bërëb boo xam ne lépp liñ fi dégg ak liñ fi gis yépp dara lees fi mën a wax naka sudul noonu amu fi muy kon bërëb boo xam ne bërëb bu baax ñëw la bërëb bu yàlla ñëw la bërëb bu sell ñëw la kon monsieur la sous-préfet monsieur le préfet monsieur Souleymane di ñoo ngi lay dalal jàmm kàddu yi nga xamante ne mu ngi bàyyi ko ci sëriñ bi sëriñ bi dina ko yëkkati jaareel ko ci jëwrinam di Cheikh Yaxya si waaye du nu def ko dul mbokku seetaankat yi mbokki julli di mbokki taalibe yi fépp nga nekk ci àdduna di ñu déglu wala ngeen ñuy seetaan ñu dégtal leen kon kàddu yi nga xamante ne mu ngi tukkee ci ki fi teewal njiital réew mi di monsieur Souleymane Ly mor ko àdd jëmale ko ci sëriñ bi jëmale ko itam ci bés bi ak ci guddi gi nga xam ne mu ngi koy màggal fii ci këriñ kër sëñ Touba gi nekk ci jannatul firdaws ci kër Mbay Fall te yàgg ko fee màggal nag te di ko ànd ak julli ñëpp ñëpp maa ngi ko nekk benn murit tijaan xaadir laay ñëpp di ko fekk fii muy màggal guddi gi ni ko Serigne Touba diglee ci sunna waaye itam di ci yaakaar bu baax a baax di nga xamante ne noonu la ko Serigne Touba waxee képp ku ko màggal ci sunna am ngërëmal sunu borom muy aljana firdaws kon mbokk ñaan ak ngeen taataan kàddu ñu bàyyi ko ci monsieur le sous préfet monsieur le préfet monsieur Souleymane Di fii ci Kër Fall. gannaaw bu ñu suñu borom julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la ñuy màggal guddeem gën a àddina tey ji euh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu nuyu bi gën a tedd nuyu bi gën a sell di la ndokkeel ci bés bi di indi nuyoo ak ziar ak ndokkeel ak sargal bu président de la république son excellence monsieur Macky sal moom mi nga xam ne moo ñu yebal tey jii jël ziar beeg ndokkeel bi lépp teg ko ci loxo premier ministre am. mu jaarale ko ci loxo ministre de l'intérieur wàcc ci gouverneur région Dakar ñëw ba ci préfet département pikin ñu teg ko sama loxo nee naa si ba fii ci yow pour jottali la ko jottali la ziar bi ak ndokkeel bi ak sargal bi ci bés bu màgg bi gannaaw ba ñu ko defee ci fan yu ñu génn fele ci dekk bu tedd bi dekk bu mag bi dekk bu sel bi di Touba keroog ba ñuy magal magal gu maggi nga xam adina bi yëpp moko ko Serigne Touba Serigne mohammed Bamba Mbacké euh, gannaaw bi bés boobu weesoo tay di judduk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñu koy màggal fii ci kër sëñ Touba gi nekk fii ci kër Mbay Fall mu nekk ci biir commune de Mbao nekk ci arrondissement Thiaroye yàlla suñ borom def ne tey jii mooy génn bi ma njëkk a def officiellement ci cérémonie diine fii laa ko tàmbalee fii laa ko njëkk a defee en tant que sous-préfet caaro Thiaroye may am mbégte gu rëy ndax dama jóge Bawol arrondissement Ndulo ñu indi ma fii affecté ma arrondissement Thiaroye mois de juin yàlla suñu borom def mois de février bu mois de mai ñu doon liggéey ci recensement impense maanaam tool yi nga xam ne moom la autoroute Ila Touba bi jaar euh, man ak sama naataango sous préfet bi nekkoon Ndindi ak préfet département Diourbel suñu borom def ñu nekk fa bes buñu xeyé jaar ca daara ja mbarasan jaar nañ fa ay yoon waaye suñu borom dogalul won ñu fekk la fa dogalul won ñu gisënt ma joggé fa tay ñu indi ma fi ci arrondissement Thiaroye tay di bes bu mag bi di bésub gamu, mawlut ma ñew def sama genn bu ñëk suñu borom def encore mu tombé ñu gisante fii tey la ko suñu borom dogal li ma jaar foofu yëpp gisante wuñ waaye tey la suñu borom dogal gise bi tey la suñu boroom gisee it cérémonie bi ma war ko def muy lu ñuy sant ndax yàlla suñu borom moo xam na muy doxal ak na mu koy doxalee xëy ne nii la ko bëggee woon moo tax mu demee nii kon euh, sëriñ bi wax dëgg yàlla. ñu ngi dolli di sant di la gërëm te di la ñaanit ziar bi nga xam ne président de la république yónni na ko ak ndokkeel bi ñu ñëw fii teg ko sa loxo ak nuyoo bi ñu lay ñaan aussi nga jottalil ñu ko njabooti sëñ gi yépp di la ñaanit nga tegal ñu ko ci loxo ku baax ku tedd ki di serigne sidi makhtar mbacke kharif general des mourides ñukoy ñaanal lol suñu borom bayiko fi lu yag yag mu wër ba sut ay moromam ñu mosa tok ci xilaafa bi yëpp suñu borom def suñu borom def mu gën leen fay yag gën leen wër ba suñu borom jaarale natangé réewu Sénégal yëpp ci loxom ñu féké ko ñun ñëpp ci kaw tal ak mën ñuy ñaan ngeen ñaanal réew mi xam nañ ne suñu borom am na lu mu def ci yéen ba président de la république am yaakaar bu rëy ci këri diine xam nañ ne diine ak administration yàgg nañoo lëkkaloo depuis temps yi colonial ba niñ amee indépendance waaye lëkkaloo bi xëñ na dañuy dem ba ci kanam suñu borom di ko gën a defar di ko gën a rafetal di ko gën a baaxal parce que suñu toogee tey ba administration Sénégal ñi ko yor di topp seen gannaaw ngeen naan allahu akbar ñu naan allahu akbar ngeen naan ashadu an la ilaha illallah ñuy wax ashadu an la ilaha illallah loolu yëpp mun nañ wax ne seen maam moo ko liggéey seen maam moo ko xeex seen maam moo ko indi fii ci réew mi kon lañuy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di ko dool leen te xam ne ñun Sénégal dañoo war a sant suñu borom ndax suñu borom dafa am lum ñu jagleel te jagleelu ko suñu naataango yu bare bari li ñu am fii ci Sénégal waruñu ko xeeb dañ cee war a sant ndax gis nañ ne saa su ne réew yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Afrique sowu jant ba ci Afrique central ba ci Afrique du Nord fitna yi nga xam ne doomu adama yi ñu ngi koy dund ah suñu borom mag ñu ciy musal de te ëpp ñu leen doole gënuñu leen euh, euh, euh, dàqa jàng nasaraan ëpp ñu leen xam-xam wante nag xëñ na dafa am lu ñu suñ borom jagleel te jagleel lu ko kenn ndax daf ñoo jagleel ay nit yàlla daf ñoo jagleel ay wàlliwu yoo xam ne ñoo ñoo nekk fii ci réew mi ñaan yooyu nag man de ci sama analyse bopp moo def différence ñaan yooyu suñ borom jagleen ñu moo def différence ba nga xam ne suñu borom toujours mu ngi ñuy aar dañuy épargner ci yenn fitna yenn yenn feebar ak euh, yenn gàllankoor yu bari yoo xam ne mu ngi dal réew yi ñu wër ñu naan jaxaran di ci teg suñu bët di téet di jaaxle te du fi mos a agsi yàlla na jëm kanam kon sëriñ bi ñun xam nañ li nga xam ne loolu ngeen di jàppale administration ci biir ak ci biti xam nañ ne administration daf leen a jox cër bi nga xam ne moom ngeen moom son excellence président de la république monsieur Macky Sall saa yu këri diine yi ootee moom mooy sol dàllam demal boppam ziar demal boppam waxtaan demal boppam sàkku ñaan su événement yu mel ni amee it mu yebal ñu ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko toogal ne ñu demal leen ma ngeen àgg fa teewal ma fa ndokkeelal ma ziyaaral ma nuyool ma tàllalal ma loxo sàkkul ma ñaan pour Sénégal jëm kanam lii nga xam ne moom la ko suñu borom yen ñuy ñaan ci barke guddi gii nga ñaanal ko sëriñ bi ba suñu borom oyofal ko yenn bi ba suñu borom lépp loo xam ne président yéene na ko réew mi pour Sénégal gën a naat pour Sénégal gën a dem jëm kanam suñu borom defal ko ko ñu fekkee ko ñun ñëpp ci kaw tal ak ci kaw mën sëriñ bi loolu mooy li nga xam ne message bi nga xam ne moom lañ ñu santoon pour ñu ñëw àggee la ko di gën sàkku ñaan nag ci suñu wàlli boppit parce que ci suñu wàlli bopp euh, ndaw lañ taalibe lañ jullit lañ dëkkandoo lañ kon fii lañu bokk comme fii lañu bopp nag yu mel nii su amee ah suñu boroom def ñu yónni ñu muy yónnent bu ñu sawar ndax xam kiñ fiy fekk xam liñ fiy fekk te xam ne njëriñ lañ fiy jële kon njëriñ loolu nag suñ la yónnee ne la demal teewal ñu da ngay gën a sant gën a sawar te xam ne doo fi ñëw mukk ba ñibbi te jëlewoo fi ngëneel kon sëriñ bi ngëneel googu moom lañu sàkku si tàllal loxo di ziar taalibe yi fi nekk yépp di leen sargal te di ñaan suñu borom may ñu ñu fekkee ko ay at yu bare bare bari ñaan suñu borom mu aar la làq la fa yàq yeggul may la wér may la fan wu gudd nga yàgg jiite njaboot gi may ko képp kuy taalibe may ko képp kuy jullit di leen sant di leen gërëm ah monsieur le sous-préfet ñu ngi lay sant bu baax a baax ci sa teewaay fii ci kër Mbay Fall ci gàmmu gi nga xam ne ñu ngi koy amale fii ci kër sëriñ Touba ah te ku ñuy wax Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Ayaat mën naa ni di ko jiite wala di fi teew boobaag léegi def na ñaar fukki at léegi mu def ko euh, dafa feeñ fii ci Kër Mbay Fall benn jëmb moo xam ne si yéem na senegal ñu bari euh, muy jëmb ñoo xam ne si bi mu agsee nekk ay atam néew lool mu ñëw ni ko Baye Fari waxee léegi tek tankam ci yoonu siratal mustaqim ah nekkit ko xamni yalla yàlla da ko baaxee ci muy defar ay xol febar bi gëna jafé jafee ah ba taxna ñepp ñu xam ci tay yalla suñu borom nat won na leen tay ñu nekk ci yoon wo xam ci tay neexul suñu borom bëgg caa génn mu tëleen yalla baxé ko ba sa yo téwé ci mom kanamam mu faj loola defé naani tay ñi ñu mëna wañi fii ñu nga xamni ci si bu dul won ak mom ay drogué la doon bu dul won ak ñom ñu ngay ay ay criminel la doon wala yenen ak yenen tay ko ci gis ma ngay yore kamil alquran di wacc alquran di wacc xasaayit sunu borom loolu la ko sunu borom defal muy lu xam dama dafa dafa jar ñu ragné ko biko ñoñu ñu bëri ragné nak xam nga ñi xam ni ñoy borom xam-xam yi leg léeg ñoy gëna téla xam borom xam-xam wala ka sunu borom baaxee moo tax boo xoolee ginnaaw ñooñu ñeneen ñi fi ëpp mooy ñi nga xam ne ni ko Baye Fary waxee léegi ay étudiants lañu woon jóge université ñëw bi ñëw ba ràññee ko ndax ginnaaw bi ñu demee ba euh, jàng mbindum Serigne Touba mi xam Serigne Touba li mu bëgg ci murit yi li mu bëgg ci jaam ñi euh, njub gi ñu bëgg ñu jub ko te mu jafe woon leen lool te léeg-léeg ñu jafe jafe lool ñu gis ñoo xam si noonu ko sëñ ba bëggee dinañ koy doxe kon bi newee ba loolu jaaxal leen yàlla suñu borom gindi leen ñu dajeek sëriñ bi ah ba ñu ay téeméeri téeméeri téeméer mën naa ni ay junni sax jóge foofu ci béréb bi borom xam sàkku kaayu xam-xam yooyu ñëw ci moom ba léegi mën naa ni ñu fi bëri léegi ay ay cadre lañ ñu nekk mën nga leen gis ci cadre administration ñu xam ne ñu ngi fii teew ak ñeneen ak faneen ci ak fii ci bitim réew fii ci réew mi ak faneen ci bitim réew kon loolu tuuti présentation ci jëmm ji la woon rek e, gannaaw loolu ma di la xamal ni fii bi mu tàmbalee fii ci gàmm gi boobaak léegi def na vingt ans ndax ba avant muy ñëw sax daan nañ gàmm fii ci Kër Mbay Fall waaye bi mu ñëwee ñu jël lépp jébbalaat ko Ah, mu fi def gam am fi dara ba yalla dogal mbir mi gëna yaatu man na ni xajatul kër mbay fall wala bok liggey bi yaatu na ba wara genn kër mbay fall ndax def na yenen dara fanen dekk bu ñu wax mbarasan ak fofu ca euh, ngeñen fu ci nek ma ngi fay def ay tol difa difa bay difa dundé dunde bay difa jangalé difa jang difa jangalé mbarasan mu defar fa juma amna na juma juma defar tuwa waaw la ca ëpp nag mën naa ni ca loxo ca ca mbayum boppam la jóge mbay ndax mu ngi ci maraîchage bi euh, mi ngi ci élevage yu ganaar yi mi ngi ci mbayum ceeb mi kon lépp loo xam ni tey lu dagan la euh, ñu koy sàkkoo wërsëg ngir liggéey ci sunu borom ngir wo euh, def ko pédago pédagogie bu xam ni dafay leeral nit ñi ni nag ni war a dunde ci suuf maanaam loola ma nga ca ngir mën a dund lislaam bu sell wan ko nit ñi itam kon bi eh, yaatal gi accès boobu la eh, nekk fële fi ñu wax Mbarasaan waaye fii ci kër Mbay Faal it mu nu ah yéen kat yéen waa kër Mbay Faal ah, man mu teg ma ca bopp ni ah yéen kat kon dee leen wéyal gàmm gi daanaka moo waral sax man ma jël kàddu gi nii tey gi waaw dee leen wéyal gàmm nga xam man bu ma ñëwee dama ñëw rek ah waxtaanal ah delloo leen ci eh, yàlla suñu borom delloo leen ci Sëriñ Tuubaa ci mbind mi ak na bëgg ja eh, murit bi dina doxe kon moo waral tey may may wax nii di wax ci tuuru mbokkum taalibe yi waa Kër Mbay Fall yi mbokkum taalibe yi nga xam ni tey ñoom ñëpp ñoo ànd ak moom dama nekk seen jëwriñ ah lépp rek mu ni nañ ko ànd taxawal gàmm gi moom bu ñëwee rek maa ni waxtaan kon mel na ni kon tey gàmm gi eh, waa Kër Mbay Fall ci la la ko teg seen loxo. kon euh, ñun waa Kër Mbay Fall ñun ñi taalibe yi nga xam ne dañu ànd ak euh, sëñ Modou Mbacke Maoul Hayaat ñëpp dañuy ànd di la sant sa teewaay bi ndax sa teewaay bi lu lu rëy la ci ñun di sant ki la yebal di président de la république di sant euh, premier ministre ministre de l' intérieur ak mboolem ñi nga xam ne ñooy say kilifa yi la yi ngay àndal di liggéeyal président de la république di rafetlu lool lool sa jéego yi. xam ni lii moom ni nga ko waxee léegi rek maanaam mënul ñàkk pour defal am réew exécu maanaam ñi nga xam ñooy taxawal defar xol ak ñi nga xam ni mën naa ni ñooy defar jëmm yéeg di ko fajak di ko di leen jàngal xam-xamu àdduna faaw rek ñu ñu lëkkaloo ngir defar suñu réew kon daal ñu xam ni jëmm ngi nii joo xam ne si moom mission wax deug yalla mang koy defar ba mat ba mat seuk tay dañ koy ñaanal yalla suñu borom yalla suñu borom gën ko may fanu guddu ah, gëna eh, defar defar defar leppam ngeen xamni nak mission bu mel nonu kep ku ko masaa jëlit wax deug yalla ah dina am ay manam ñu xam dañu jog ni li dal mom du fi amé lolit kon ñu ngeen ngeen bayiko xel bu baaxa baax ndax kep ku massa jog di defar ay jikko nga xamni tay ñi daan drogué ak daan kii ak ñëpp ku ñëw ci yow boo jëwee boo fa defee ñetti fan rek daal di nekk kuy jàng alxuraan kuy def lu baax kuy julli ku xam ni euh, doo jël yëfu jàmbur doo wax lu dul noonu jikko yi xam ni tey moom lañ bëggoon ci ñoom ñëpp képp ku masaa jëfe loolu nag ba àdduna ba euh, démb ba ba tey ah faaw rek nga am ñoo xam ne dañuy wax ni du fi amee waaw kon gàllankoor yooyu moom ma bàyyi ko xelit waaw xam ni moom dafi daf fiy nekk saa su nekk ndax faaw dañuy ñëw ci yéen yi xam yéenee kilifa yi di leen kii naan di leen ah sëñ bee kat na mu def wala la mu la mu kii nangam loolu lépp mën naa ñun ñi xam ni si tey ñoo fi nekk ànd ak moom te fi mu toll nii ñi la wër nii rek gis naa fi ay magistrat gis naa fi ay inspecteur façon kii bu nekk gis naa ko gis ñu ngi fi ñu ngi fi jàkkaarloo jàkkaarloo yow waaw fas yéenee rek ànd ak moom ngir ci jaar ci yoonu njub jaar ci yoonu siraatal mustaqim li Sëriñ Tuubaa bëggoon ci jaam yi ah ñu ànd ceeg moom kon loolu lañ fi nekke kon daal ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax seen teewaay di sant président de la république di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko ndam ci fi mu bëgg a àggale réew mi yàlla suñu borom may ko kàttan ak wér akum xel bu mu àggale réew mi foofu waaw tey réew mi yàlla suñu borom fi jàmm musal nu ci Eh, eh, fitna yi nga xam ni moom mooy moom la ñuy dégg ci yeneen réew yi yi ko wër sunu borom musal na ci ah yàlla sunu am nañ ci yaakaar lool ndax jëmm yu mel nii kon euh, jërë ngeen jëf ah, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bi Allah jullit yi mbokki taalibe yi mbokki salaankat yi ba léegi yéen a ngi ànd ak groupement Hayat communication ci guddi gàmm gi nga xam ne ñu ngi koy amal fii fi ñeentul Firdawsi Kër Mbay Fall mu nekk guddi gàmm goo xam ne nag guddi tawféex la guddi ci ko bu euh, guddi gi tàbbere ci la mbokk taalibe yi tàmbali jàngum xasida mi ak jàngum alquran mi ngir kat euh, sëriñ bi kat day bëgg kat mun bis bi kat buñ ci yegsee kenn bañ a neenal waxtoom ndax lépp loo xam ne ay tew tawféex la ak ay xéewal yoo xam ni kat Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul indi na ko ni kat ci képp ku dundal guddi gi kem ni mu gën a sellee kat di nga ko ci am serigne bi da fay bëgg fepp moko jullit ak moko taalibe bi jógee rek bi egsi fi rek lépp lu guddi gi làmboo ci ay tawféex rek manam dara bañ la cey moy ba tax na mbokk taalibe du neena seen benn waxtu ñom ñepp dañuy gorgolu di selal di gorgolu ci khatide di gorgolu ci alxuraan yi ci gën nga teddi anama kon ñu and dektal leen kër ñangum khatide mi nga xamné ne mbokk yi amal nañ ko fa ci jotaay bi ñëk serigne bi di yegg si Dev

فتاد بالمصطفى كنت البريد Allah قد نادى

والمساجد نبي

لنا دينا بلا Parei. الصفا من سن المدين الوامل تلك الحياه العذاب الأمينة لا تجاهى بعد أموالي من الحوارب زيد ودار ما جهادا وجيبك لما la به وليس يؤتى به ما ولا غادي غاب في ليل خاف للبال يظلمهما حتى نبي سريدا نبي أو السباب Allah يتبنى

أجر yaa Bye-bye. Bye. njàngum xasida mu am solo moomu te paseefu loole ñu ànd leen dégtal leen waxtaan woo xam ni kat mbokk taal bi amal nañ ko njëkki sëriñ bu tedd bi Cheikh Ahmadou Mbacke Maodo si jotaay bi mu nekk waxtaan wu am njëriñ waxtaan wu am solo boo xam ni sëriñ Mouhamadou Ngom nga xam ni daanaka ñëpp mën nañ ci jotaay bi ci xam-xam bu sell bi nga xam ni saa su nekk mu ngi koy joxe saa bu yëkkatee kàddoom mu am nag dénkaane eh, Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu sol bu mu indi bu tudd ilhaamul salaam nga xam ne lépp rek dafa jëmaat ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mi nga xam ne njàngale mu mucc ayib la njàngale mu matale la nga bunt bu mu ci ubbi tey nag mu nekk bunt boo xam ne kat dana tax jullit bi ak taalibe bi ak ki nga xam ne sax amaana gëmul yàlla waaye fi jamono tollu jaxasoo loolu ba Occident yi di ñu xemmeem loolu li nga xam ne moom lañ nekk te muy ay caaxaan ba tey ji jullit bi nga xam ni kat moom moo yor li gën a tedd li gën a sell li nga xam ni kat ki feeñ ci guddi gi muy gën ki mbindeef salallaahu taala alayhi wa sallam moom la indi woon muy lislaam kat jullit ñi kat gën koo fonkaat gën ko bàyyi xel waaye kat leneen li nga xam ne ñu leen koy jox te muy jóge feneen te dëppwul ak njàngale moom kat ñu mën a am ak ràññee bu mën ko woon ginnaaw